yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sopp koo tax ñu teew si fii ah ñi ko woote wootewuñ ko ci turu benn kuréel ci Sénégal lu dul kuréelu lislaam rek ndax seen cheikh dafay wax ni ci loolu moo tax ci njiital Ibrahima Badiane mi mu woote lii ak ñi mu àndal ndax kenn mënu dara benn lam du keneen kon boo gisee mu man nii dafa am ci jàpp ah waaye itam sëñ Babacar Si radiyallaahu anhu daf daan wax ne nag bu ne war naa xam barka ma muy naane ak gétt ga muy fanaan bu xëyee nag mën na wëtti fu ko neex mu fore fore waaye bu naan jotee daal na xam barka ma muy naane bu tëdd xam gétt ga muy fanaan nag la ma ni mburug lu mu ne mën na faa fore waaye bu wañee ku jotee dina xam gétt ga muy fanaane bu mar jotee itam naan dina dem xam barka ma muy naane ndax kenn ku ne danga am kilifa boo wéeru ci réew mi moom nag kër Seydi Hadji Malick wala wéeru waaye yàlla da koo xoole ak Serigne Cheikh wax dëgg yàlla moo yàgga déggoo moom booba fii mu agsi tey agsee gu fi Serigne Cheikh itam lii mu nekk tey booba nekkagu ko ah, mu wutu ko nag ci liggéey bi ndax Serigne Cheikh dafay wax ne képp kuy liggéeyee lislaam man ci sama rafet njort defe naa ni man lay dimbali kon nag képp kuy liggéeyee lislaam bu bu ko yëgee bu ko yëgul nga yëg ni maa koy ñaanal te itam yéene naa ko lu nekk kon nag xam naa sax fii mu ne wax dëgg yàlla da soox ndax da feebar waaye Ibrahima kenn xamul noo koy def faaw nga soox rek ba dem fa teewal ma fa. eh boo bu ngeen ngeen wax ko ni ko noo ngi koy gërëm te yëgal mbooloo ma mu àndal ni leen nañ ma ko jàppaleel te xam ne geenu na waaye lu ca dal borom yëg ko ah kër moom mi yàlla nattoo tey mu mag fa moom Serigne Cheikh nee na ah ñaari cër a am cër bi la xaqiqa sédd ak cër bi la aada sédd cëru xaqiqa ne danga koy judduwaale waaye aadama ya man sama yoon ci loo judduwaale feeg magoo fi du ma la jox cër bi man man aada mag lay fal duma fal ndaw ak cër bu mën a am mu ne bu la yàlla nattoo nag xaqiqa fal la te aada falagu la dangay sonn waaye boo demee ba aada wàll ci fal la itam ndax yaa fa mag tuuma dugg na ndax lu yàqoote ñu ji la ko waaw mu ne moo tax ku may dimbali na ma dimbalee ci bu kenn amati lu ko metti lu jóge te Seydi Hadji Malick eh, tiiru xaqiqa bi moom fa tabarakallahu ndax bi mu amee dix-huit am na benn naar bu daan ñëw ci Cheikh El Hadji Abdoul Aziz radiyallahu anhu koo xam ni arab yi la shinqit la dëkk fooroon ci tariqa bi la mu koy xool moom sëñ Cheikh Bayat mu ni ko a ahmadu suud fa shattuka an tasuuda wa dus mahlan bi ahmusika sauuda mu ko yow ya ahmad Sud, fi'lu amrin la ci nekkal sang saa dayee ya suudu suud fa sha'nuka yow ya sa mbir an tasuuda da nga war a nekk kudus tengen tengai deg dengan mahalan tan kena bi ahmus ika cisen deg gultang solo da ahmus moin deg gultang sidahat madar bi ahmus ai muqtafin hadin hudan wazirin khairin bariyati khumsanun walam yasini muneko wadus mahalan bi axlusika suuda wa zaaxim te nga buuxante fawqa hamaati tahaani ila ولو كان الذي أعطيت يبغي مزيدا كنت أعطيت المزيد أبوك هو الخليفة عن أبيه وأنت خليفة عنه وليدا فنلت السر منه ونلت منه سديد الرأي sa السديدا kuy wax loolu ci à l'âge de 18 waaye aada lank nit du la jox ko kër gi fekk ma ko mu ne kon nag bu aada jekkee ba léegi ma mag ci kër gi tax mu jox ma kër gi dama tiit ndax bu fi yàqoon nañu jéñ ma ko kon nag na ma ñëpp jàppale ba kenn dootul wax dégg lu ko metti lu jóge kër Maodo wala loo xam ne lii neexu ko moo tax ma jël ku mel abdul aziz jël ku mel ni cheikh seydi aboubacar bu alaaji mansour jël ku mel ni cheikh seydi alhaaji malik bu alhaaji abdul aziz ni leen ñett yéen saalus bii yéen ñett ñii na ngeen ma nekkal ci biti ndax yàlla ma ndax ku diir mu am ku ko mane ni yow tey sa mbokk boo ko joxul yaa sa ba mu na la ah mu ne kon nag kuy liggéey lu demee noonu ci réew mi di defar xale yi di jubal jigéen ñi di waxtaane lislaam ak nit ñi dem ba jub moo boo ko yëgee boo man jàpp naa ne man ngay dimbali te ibrahima nag wax dëgg yàlla loolu lay def te itam wa innama al umamul axlaaqu ma baqiyat waaye wa in humu dahabat nit ñi jikko yi rek bu jikko amul nit amul solo sëriñ Cheikh dafa wax ne ashurbu wal aklu shahiyi wa lazatun wal jinsu mawjudun bi dilli ximaari nee na ku fi nekk nekke woo fi lu dul lekk ak naan ak takk soxna amul defoo ko dara ndax loolu baama la ko dàq kon nag mbir mi nekkul foofu li tax yàlla ne wala qad karram naa bani aadama loolee boo ko defee ba tax yàlla ni maa teral doomu aadama moom ma gënal ci li ma bind loola mooy liggéey ba waaye lekk ak naan ak takk soxna rek ku fi bàyyi baa ma la tane bal hum adal ulayka kal anaam bal hum ak kon nag bu Ibrahima jiitee lu mel nii ustaas yépp teew njaboot yépp teew kuréel bu ne bu dee turuq yi benn bu ne teew nga fi bu fa kilifa ga teewul itam ndawam teew na fa ndax xam nañ ni moom ñoom ñëpp lay liggéeyal te sëñ Cheikh dafay wax ni taalibe bu nekk bu mu tarbiyewu sëriñam dong na fexe par exemple ba bu dee murit mu liggéeyal sëriñ sépp ba Seydi Hadji Malick ñëw ni sëñ Touba sarax ma ma décoré sa waa ji bu dee tijaan itam na sa ji sarax ma ma décoré la ko ndax nee kenn ku nekk. war ngaa liggéeyal ñëpp ndax nee bala ngaa doon ab taalibe doon ab jullit ñëpp kon islam d'abord la ca nga soog ko caa ah comme nag yàlla def lii ci Ibrahima wax dëgg yàlla ñun kër Seydi Hadji Malick dañ koy tiitaroo ndax sëñ Cheikh daf ni ñaara nekk ci njaboot njaboot boo xam ni dafa am kilifa bu baax. waaye yàlla dogal mu sàggane boppam ba fu muy jëf rek njaaxum la fay jëf buñ kuy kilifaam ñu ni moo kii nu mën a mel nii mu ne boobu ku ne war nga ko ak njaboot gi nga xam ni kilifaam dafa baax mu góor góorlu ba fu mu jëfee jëf lu baax ñu ni kuy kilifaam ñu ne diw ñu ne ak ah kii kay jër la naw nii rek la war a mel mu ne loolu mooy taxawaayu taalibe moom nag wax dëgg yàlla taxaw na ba bu defee bu waxee dara bu la def ko bu ñu laajee fu mu yaroo ku ko ku ko tarbiye ñu ni kër Seydi Hadj May la jógee dañu ne ah kooku kay la war a mën a mel wala la eh, wax dëgg yàlla moom daawoon liggéey pour tariqa rek daf daan wax ni sama kër tuddul santul si yàlla la sant kon nag ku yàlla saf rek ci nga bokk ku yàlla ñor rek ci nga bokk mu ne dama dama leen di ñaani tam bu kenn jëfandikoo wilaya nag ku nekk xel mu rafet bala la yàlla jox nga jëfandikoo ko ndax wilaya ku ko am loo ca am ci njariñ denc ko bënal ndax di ko den jëfandikoo xel mu rafet ci àdduna moo tax sëriñ Cheikh ni wilayatuhu tabamata dëhri bikratan tufaanu lahal asraru baada imtihaanihi mu ne نتائجه ملموسة فوق منية وله منطق يغزو آه، آه، ولو بارتجاله دادني وكان يرى مستعمرا مثل طالب يؤدب حتى حتى لا يسيء بفعاله وكم امر السلطات بالعدل بينها wa bayna rijaali wa bayna ibaadillaahi wusqa atidaalihi mu ni Maodo dafa jàppoon colonialiste yi comme ay doom jàppe na ay taalibe ba dañ a war a yar ni ñu yare taalibe ba ñu bañ a leen wax it ni na ngeen fexe ba ni yàlla fexe ba teg njabootu diineen bi ci seen loxo ngeen coloniser leen maanu bi mu jëflanteeg yéen tubaab yi ngeen jëflante ko njabootu diine gi yéen itam ah kon nag nit bu fekkee dafa am kilifa goo xam ne foofu la xalaatam toll lu mu def lu dul roy ko ca ak ëmb ñëpp mën a dëkk ñëpp day wàccu ndax nee na ku la gën a jege yàlla ëpp la tolérance waaye ku la gën a sore yàlla gën laa jege iblis gën laa xar kon nag ñun nag a am ñëpp. ndax nee na loolu li ko waral mooy wane bu jullit boo dem fekk fa Isa fekk fa Moussa tur yonent ba nekk nga fa doonte sax njabootu yonent yi ci def du ñu tuddee waa du ñu tuddee Muhammad doom lu dul nee benn bi waaye dala gis ca koo xam ni dem na ci christianisme ba am ca cër bu ñoo réwi rempère au ma noonu la am def ci tubaab waaye nee na maarum abum la tudd waaye loolu mooy tiitaram ci ci catholique waaye mu tudde Muhammad doom daa di ne ishta yabni ishta yaa xayra sabi waladatku ummuhu fi rajabi Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ndax laam na ñoom rek la fi wax yàlla yàlla fayal ñu la ci darajey mbooloo fi toog yal yàlla roof wér te root ci wéradi yéene yi góor ñaan fi yow bokk na ca sax wax médecin bi ne téye bu mu génn ma noppal oo ma ko waaye yëg naa ko ne ko bu ko bàyyi mu génn téye ko fi rek ndax su génnee du noppal kon yàlla la yàlla may wér yaa ngi lu sumaare su ko defee dañuy def li olof di wax ku am gan yokk ñëw suñu papa suñu xarit waaye Père Sine Sakho mu ngi toog waaye borom làmb yi nag mu ngi toog yaay oustaz am na sànni ñu di toog ñëpp ku fi wax rek moom ngay jàppale. dama ne woon benn gàmm nag war ko gàmm. ñu am ñu fa yebal mu teewal ba benn kii wax ja yàgg lool màgget am génn góor bu ma dab gis ne carte bi war na ne ma li turu kan la ma ne ko man mu ne ma lu tax ñu def ma ne ko man leen maa koy tiim mu ne ma loolu bu la doy boo gàm gàm gàm ñu du subhaane yaa abdurahman yaa abdurahman su ko defee nag loolu rek la jox bàyyi tarsi moo sànni li mu ñuy sànni jox ko programme bi mu daw mooy ak ustaas Aliou Sall bi ñu war a ndax képp ci waxoon nañ leen am na lu ma tontoo am na lu ma leen waxoon la mel na lu leen leen kon ngeen góorgóorlu ci rajo bi wax dafa métti te li fi demee ci matériel yi bu ñu amoon lu ñu bëgg jaru kon bay parti ma gërëm sama xarit sama jigéen Adja Ndella Wade mu ngi ca ginnaaw làqu yooyu leen fii ma ne ko nag bu mu dem na toog ba waajur yi fii maa ngi koy gërëm bu baax bis ba asaka dafa def ba mu saw togg ay def fa ay ñam ci bis ba asaka maa def waxtaan am na xale yu tëlee ñu ma xool ci dépôt ba ma guddee xol lool loolu la ku koy def ci mooy ci kenn yëngu na yaa koy def ñu koy fay bu baax moom Adja ak yàlla war yàlla yàlla ñu jox bay perte saako la mu sànni li muy sànni ñu jox borom gàmmu mu gàmmu kon bismillah waaw. ak doole ji gis nga ñëw li may ñaan na sama digganteeg yéen li may man xawma ni may ñëw xam ni lim ñëw yéen yi ci dee tax te lii man jot na ko ma ko bokkale ni toog amuma sol jarumaa gërëm yéen ñuy jël yëpp li ñu di nañu waxal ci kaw bari moom solo kon ñu jox koy parti mu sànni li muy sànni ñu jox borom guddi gi mu sànni sànni mu wax ñu la ñu daan wax ah bu daalee seen xaalis seen li toog ku ne gis